ngir ngeen di bañ a rata benn événement Wally Ballago Seck abonnez-vous sur Univers Info TV ngeen di am information yi à temps et à l'heure Univers Info TV. 7TV mooy woote ne télé bi moo woote. wàcce tuuti le nii lay demee. dëgg la et euh, Gambien yi na ci ñun loo xamante ni amuñu seen fay. Mm-hmm. maanaam bu naan deuxième pays bi ñu gëm Wally. dëgg la naan à Sénégal dañu Gambien yi. Mm-hmm. ñu jàppale ñu nag. ànd ak ñun dooleel ñu. ànd ak ñun fu ne. ànd ak ñun Zénith ànd ak ñun Bercy da ak ñun Do Dos Ousmane ànd ak Paris ànd ak ñun euh, arena bu bu Suisse. waaw ah, waaw kon ñun Gambie yi amuñu seen fay. dëgg la gunge leen jusqu'à présent ñu jàpp Wally. Mhm. muy maire maire Wally yi surtout maam Gambie yi. wallaay maire Wally yi ñu nekk ba Angleterre. wallaay ñu nekk ba Suède. Mhm. ñu nekk ba Amérique. Amérique bëgg Wally mbëggeel goo xamante nii sax mhm. dama naan est-ce que Kiné Diouf bëggeen nii waay dëgg la waay ndax ndax cofeel gi ñu am ci moom mhm. kon ñun Gambien yi amuñu seen fay dëgg la saa ñu ñëwee ñii mhm. la ñuy accueillir trois jours yi mu fees del yoo xamante ni lépp da def gi sa kanam kon donc mention les Gambiens bég nañu encore une fois kontaan nañu trop trop trop ci macha yaay waali waali mooy yow tey macha allah mu am bés bu rëy bii mu def pare nii dem ni hôtelam dem nelaw moo tax tey presse bi yëpp ñëw tàllal la micro nga tëj nag macha allah li nga xam ne ne mooy soirée de gala bu mag bi ak soirée bi nga xam ne xale yee ko organisé tey muy le euh, vingt euh, vingt trois vingt quatre vingt cinq vingt trois kon nag Amady Badiane tey dañ lay laaj si waali tey sa yéene ci waali ak tey boo doon ñaanal waali loo koy ñaan gudd fan wér ak cat yal na ko cat yal na ko yàlla musal ci cat. ci kàttum Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. njàpp ne yow yaay baayam lu waral loolu. waaw moom ku ne xam ne njàpp ëmadi rek. Hmm. ku xool ëmadi bu njëkk boo xoolee njàpp rek xam ne lépp lépp lépp xool waaw njàpp rek lay fekk. waaw macha allah macha allah loolu leer na kon nag. Hmm. Euh, euh, sotti teg def ci la.

à vous ah. bëgg naa tv mhm. kontaan naa ci yow. wax nag ne déwénati. Mhm. kañ ngay ñëw Oumou Show émission bu mag boobu ci 7TV yéen a moom yéen a moom Amady Badiane. saa yu ngeen ko dañu koy defee ni ngeen ko bëggee noonu lañu ko defee. ñàpp looy teg ci sa baay bii lu mu la wax indi la fii macha allah ci Ramadan coow li laay wax maa loolu fa loolu. faramaareen bi nga xam ne ku ñëw mu boot. ah comme moom li mu wax léegi rek sama baay ji. Mhm. comme li mu ñaanal wàll. ana kat bi. mu ma denc. kontaan oh, naa njàpp. <laughs> ci Amady Badiane ak maa Yacine Meysa bii nga xam ne ne moom. orchestre bi léegi raam daan dafa yaatu université laa ko tuddee ku ñëw boo ma sa société la comme ni ma koy waxee rek. Mhm. waaw société la parce que tey jii boo boo boo ñëwee ñu yaatal la xam nga loo bëgg ñu defal la. Mhm. tey jii boo joxoñee ñu dagg. kon donc ñooñu awma seen fay mhm. surtout surtout suma papa ji Amady Amady Badiane waaw ah, vraiment tey jii dama ñëw mhm. mu dooleel ma ah suma papa ji tamit waali mu dooleel ma mhm. mu jàppale ma tey ji ku a teral yaay ak papa ba ma ñëwee wax leen ko dañ ma jàppale barki sëriñ Saliou kon donc comme moom lim ñaanal waale waaw rek laa koy ñaanal dëgg la ay parce que yëf yi lay doon dëgg léegi man bu ma ko ñaanalee mm. mu mu ñaanal waale. Mm. après ñu daal di avancé jëm yaa ngi seetaan 7TV. 7TV maa ngi koy seetaan kay. Ah. yow yow ngay sama yaay. Oumou Sow ah ah papa Ndiaye tuuti sama papa. dëgg la. nu ma def dama koy seetaan. coow lu bari lii ci dëkk bi lan la ñu naan ba jàppal jàpp bàyyil jàpp yow naka nga ko dundee. jàmm ak salaam rek man xam nga du ma lu bari na. Mm-hmm. waaw gars yi li ma ci xam sax bariwul. waaw mais tey jii xam nga Sénégal dañoo nekk dëkk boo xamante ni. Mm-hmm. vraiment xëy na wax moo tax ñuy am xaalis. Mhm. mais noonu la dama leen di comprendre rek mais man maa ngi sama ginnaaw. faramaareen nga yaa sa ginnaaw papa. waaw te fii nag université la. ñàpp. Eh, eh. doxal sa dox te bul gees. jeex na man yaay sama sa ah, ñëw biir Faramaré bi gis nañ ne dafa mel ni mbégte la si yow dafa mel ni loo xam ne la yàkkamti woon nga. waaw parce que dama fay fekk sama kilifa. waaw muy Amady. suma la. boo ma xoolee moom ngay gis moom boo ko xoolee man ngay gis. loolu dong moo tax ma kontaan. waaw ah, mais dañuy gis sa biir wax tout le temps boo yeggee ci seen bi. waaw dañu laa yónni yàkkamti la. mu ah. mel ni ñu jàpp la am lu ñu koy xaar daa teg ci war a baxal ndox ndugal waa këram toggal leen moo tax mu changé yoon nekk ci leneen. non non <laughs> loolu moom du ma ci wax. mais daal maa ngi ci sama ginnaaw papa Amady ak ginnaaw sama ginnaaw papa Waly ak waa Ramadane. Mhm. maa ngi liggéey fii incha allah maa ngi sant yàlla aussi. ñu dégg. Mhm. waa Kambe kenn xam ne sa mag la yéen a bokk Saalum. Uh-huh. mu ne booy dañoo xaw a yàkkamti. Mhm. jàpp suñu yàkkamti du ma wax lu bon ci moom. Uh-huh. mais lépp mënoon na ko xaar rek ku yàkkamti nag mooy loolu. waaw comme li ma la wax léegi rek <laughs> garaawul quoi <laughs> waaw garaawul. yàlla na ñëpp ah. waaw lépp yëfi jinne la rek xam nga man damaa bëri seytaane bëri jinne tamit waaw loolu dong la yàlla na ñëpp am jàmm <laughs> nañ jàmm Thank you. season. Kadal sa kër maam Kadal sa kër maam bien. événement Wally Ballago Seck abonnez-vous sur Univers Info TV ngeen information yi et à l'heure Univers Info TV